konda komba bi ba pare ben contentement ma am moy ñu ci dogu suñu xarit euh, sunu sunu sunu sunu nit moy Amar Saw responsable APR nga xamni nit ku yalla baxal la vraiment affaire bi sax bin ko ko tuddee dañ dañ ko bet tuddee ko drapeau bi mais tamit lim wax legui rek teranga ken du ko delloo te teranga tamit du tuti ñewon fii wess Foire ci kërëm ah di def remise de drapeau bi ànd ak sama gars yi ku ci mel ni Amath Dia ci mel ni góor gu Diop ah ak euh, euh, El Hadj ah, yàlla dogal ñu ñëw ci kër euh, Amar saw def remise de drapo bi loolu daal moo na fi indi tey fii ci West Foire xam nga yow xañ na sax Amar Sow xamuma mais ngéwél gi production mën naa Sénégal gépp xam nañ ko kuy képp kuy daxa faral di siiwur làmb Euh, ba tax na euh, gis nga sama journée bi passé le 24 la la la le 24 euh, mars bi passé ma tudde ko tuuti tuuti Ndiaye doomi mbay Ndiaye moom it wax dëgg yàlla mu ñëw def délégation bu am solo ñu def làmb joo xam daal Sénégal gépp kontaan nañ ci foofu nañu félicité la loolu yombul léegi nag ñu def suñu sunu suñu deuxième journée mu mu dox ci diggante alliance bi ren ak Bulldozer muy ñaari doom doomu doomu doomu doomu baliye euh, kenn ki mu ngi mi ngi mi ngi bàyyi ko Malika kenn ki mi ngi bàyyi ko euh, yëmbal nga xam ne kon ay doomi baliye lan euh, ma jël drapeau bi fonk gun fonk Amar Sow mi ak fonk gun fonk Sénégal mu moom it mu nekk ci président Macky Sall di ko jàppale di ko di ko di ko di ko di ko di ko dooleel loolu moo tax ni wax dëgg yàlla ñu jël drapeau bi tuddee ko ko ndax ñun ku jàppalee président rek ñun dañ lay jàppale dëgg yàlla parce que ñun tamit euh, boo gisee tey jii euh, euh, maa ngi ci lancé waale appel maa ngi ci gërëmaale ku ci mel ni Matar Ba ministre nga xam ne vraiment tey jii dañ daan jooy arène nationale tubarkaal tey mu indil ñu ko loolu lépp tamit aussi tamit dafa nekk lu lu lu loo xam ne daal dañ ko war sant gërëm ko Euh, ba tax na daal tey jii ñu jël nitu APR mu bokk ci président Macky Sall jagleel ko làmb ji tuddee ko ko loolu nekk na loo xam ne daal loolu ñor la ñun waa Ngéwél gi production. Hmm. samedi la la vingt eh, stade Iba Mar Diop eh, yow yaa ma gën a xam fu yeex doo am place ndax waa Ngéwél gi xam nga ne yow vraiment eh, ñun dañuy programme ca sunuy programme macha allah day tegu ci yoon. et puis dañ ci def liñ ci war a def yépp ndax xam nga nit yi bu fekkee ni da nga terbiye benn affaire loo mën a doon li gaay naan da ngay mbapat boo mbapatee ba ci fi nga war a agsi yàlla dogal nga nga nga nga nga nga ngay def ay ay ay programme yoo xam saa boo defee nit ñi kontaan saa booy def li gaay naan da ngay yokk cere dool ñeex da ngay yokk cere dool ñeex ba tax na daal vraiment ñun tamit ñu ngi gën a góorgóorlu ba xam ne événement bu ñu def ah gën a neex événement bi nga xam ne moom lañ jàllan loolu daal lan fas yéene def samedi le mais avril fee ci stade Iba Mar Diop tuddee ko suñu nit suñu xarit ah muy euh, Amar saw nga xam ni vraiment ñu ngi ginnaaw président loolu daal moo indi pour euh, ginnaaw dañuy sant yàlla julli ci yonent bi sant aussi suñuy waajur bu baax a baax sant aussi tamit suñuy dëkkandoo yi muy waa Yëmbal Sud di sant aussi tamit samay mbokk yi nekk ca Gabon parce que tey buñ ginnaaw yàlla buñ déggee Omar Sow Gabon la déparé door tey Yëmbal Sud. donc waa géwél gi production amul lum lan di dul sant di leen gërëm parce que ay jeunes lañu gis ma dañ ma bett ba yëguma ko sax yàlla xam na ne dem def defal seen drapeau def lu ñuy def yëpp dox seen i combat def lu ñuy ba dernier moment ñëw ne ma yow lañ ko tuddee donc ça veut ay jeunes yoo xam ne peut-être xawma leen musuma leen peut-être nii la rek ci banlieue bi la ñuy daje ñuy jeune wala xool ma ràññee ma ci jeunes yi ñëw tuddee ma drapeau boobu donc je pense que tey lu rëy la ci man te dem ko ne teraanga du tuuti donc loolu loolu tey dam leen di delloowaat damay jëlaat drapeau bi rek tegaat ko ci loxo yi ñoom waa ndaw banlieue bi yëpp delloowaat ko comme nu nga ko waxee aussi tamit ñin ay ndaw lañu ndaw président Macky Sall lañu ndaw Sénégal lañu aussi tamit ndaw diaspora lañu dinañ ko téye parce que sport dafa nekk loo xamante tey euh, dafa war a nekk développement la te esport tey dafa war a am comme phase bu ñu jëm muy le présent ci lu mu wax mooy affaire citoyenneté affaire tey un Sénégal propre. donc tey ci loolu noonu ci démarche boobu la ñu war a jaar ci biir sport la war a jaar pour mën a lancer message bi lu présent bëgg a def yëpp ci sport mën nañu ko jaar te làmb mooy suñu sport national moom lañu xam te moom la ñu moom mooy suñu lépp tey donc war waruñu nangu muy dee waruñu ko bàyyi tamit parce que am na ay jeunes yi ciy yëngu te dañ ciy dimbali seen waajur ñun aussi en tant que des acteurs politiques lu ñu ci mun mooy lu ñu ci mën a jàpp rek incha allah ci bés bi jàpp ko ci yeneen bés yi mën a jàppale mbër yi ba mbër yi tey suñu arène nationale comme nu mu ko waxee ci réalisation président bi euh, làmb ji mën a làmb ji mën a suqalikuwaat ba jeunes yëpp mën cee gis seeni bopp. yàlla julli ci yonent bi sant suñu waajur di sant suñu sëriñ yu baax di sant euh, waa Ouest bi ñu fekk fii yëpp di sant monsieur Sow di ko gërëm tam ci dalal bi mu ñu dalal ci Ouest Foire di sant tam waa këram njabootam gi ñu fekk yëpp di rafetlu loolu initiative bi nga xam ne tey Ngéwél gi production jug na.

jeune bi nga xam il est responsable après dynamique encore di jàppale la jeunesse di jàppale son excellence monsieur le président Macky Sall ci taxawaay bi ni mu gën a rafetee ñu am tey mbégte ak contentement tey ñëw seet si ko Mor tuddee ko drapeau bi muy li nga xam ne tey hommage la boo xam ni Sénégal yëpp ñu ngi koy xaar bon di ko xaar ci jeunesse bi mu ànd ak délégation boo xam ni war nañ mën a xaar loolu biir stade mu ñëw seet si ko. ñaari mbër yi ko war a bëre tamit ma leen di lancer un appel muy alliance Birame ak Bulldozer que ni combat bi ñuy bëre nañ ko bëre ci image yu ki ñu ko tuddee ndax boo xoolee ki ñu ko tuddee muy Omar Sow nit la koo xam ni nit ku correct la d'abord nit ku dal nit ku yiw nit ko am personnalité ci boppam ñu bëri ko ci fair play bëri ko ci image am que le ñu ko. waaw ba tey rek ñu ngi ak Amath Dia kenn dootu ko présenté ci réew mi amat Dia xaritu promoteur yi Amath Amad jabu manam bo xamanteni moy mooy jabu Senegal mën nañ ko wax di xaritu ñëpp ah ku xew la ñu gis ni ci taxaw di taxaw promoteur yëpp loolu moom yaakaar naa ne ku ne mën na ko seedeel ñu ngi leen nuyu. waaw ngi leen di fay di nuyu ñëpp di nuyu Sénégalais yi ñëpp di nuyu tamit Omar saw ndax man dama fier si moom la wax dama fier si Omar saw mooy dafa nekk doomu yëmbal te man clair yëmbal lay défendre à chaque fois. xëy na drapeau bi bett na ko mais yéene lañ ko ko joxee ndax maanaam miinante ñu woon mais si parti bi lañu miinante mooy élection yi maanaam dafa def loo xam ne tey jii ñun école bañ am voté Omar Sow aññi poisson yi yëpp moo ko war te boobu mu Gabon di jàppale président Macky Sall kon kooku ñu mu nekk doomu yëmbal amuñu dara lu ñu ko jaglaal mooy jagleel ko drapeau bi moo tax tey ñu jël drapeau bi jagleel ko Omar saw amul dara loo xam ne séentu nañ ko si omor Sow mooy maanaam nit ñi xam kan mooy Omar Sow Omar Sow jàppale président de la république moo leen bëgg a gis stade samedi nga xam ne kii moo nekk si ginnaaw président di ko jàppale xeebalul kenn bisam bis bi nag bis waa yëmbal la man yëmbal laay wax ndax ñaari doomu banlieue ñoo koy bëri dama wax ni yëmbal yëpp nañ jóg gunge Omar Sow ñoo xam ne Omar Sow miy jàppale président de la république ñëw na ci ñëw na loolu laa bëgg drapeau bi nag sa drapo la sa drapo la mu ngi noonu lépp loo si def sa drapo lépp loo si def sa drapeau la joxe na look ak yéene ak xol bu sedd guy ñu nekk doom banlieue dëkk yëmbal moo tax ñu jox la drapeau bi te du yem fii nag du yem fii làmb ji yaakaar naa ñu ngi naan mbëri mais yaakaar naa waaye yëmbal suñ ñëwee kenn du am foofu place en tout cas ñu ngi jox rendez-vous ñëpp samdi xam esat Iba Mar job en direct 2 tv drapo Omar Sao. di gërëm nak sama dom ndey mi Mor Mbaye production dafa jël lépp jox Moko. Hol xool lu may def xool lu may dindi su ma nekkoon lii mun a ma man sama nekk si journée bi la ma wax journée bi sa journée la bu réussir sa journée la bu réussirul sa journée la kon damay ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ yàlla suturaal ba lepp luñ ci yéene yalla dafa ñoo ci barki Serigne Babacar Si ma ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam